asalaamaaleykum sëñ Daouda Cissé maa ngi lay ziyaare baax a baax man la sëñ Ablaye Sylla euh, di rakk ci sëriñ Abdou Sylla moom nga xam si ni xëy na yaa ngi woon ci liggéeyam euh, sëñ Daouda maa ngi lay ziyaare baax a baax te di la jaajëfal te di la sant bu baaxa a baax baax ci liggéey bi nga xam si ni euh, sumb nga ko di la ci ñaanal yàlla yàlla may la ci ndam di barkeb sëriñ Touba ndax ñun ñii ay rakkam de ak way juróom am nañ ci moom ak jaaxle comme niñ la ko waxee woon rek ci dossier bi noonu ah Abdou nag doon na koo xamee si ni yàlla dogal na moom këram a ngi fi noppi na waaye sama rakk mag ju bokkal ndey ak baay moo ah fële nag ci Dakar di kër Mbay Faal fa soxnaam fekk baax waaw ma fa nag soxna sa di néggandiku di ko déglu moo ko njabootam diit ba mu fa liggéey ba nëgëni ñun ñii man mii di rakkam chaque weer wu ne am naa loo xam ne si lu ma fa war loo lu ma fa war a def ci njaboot gi ak moom moom ah jamono nag mett ne mett waay goo xam ne si nii yéeme na yéeme goo xam ne bari na xëy na yéen lu ngeen ci bari lu ngeen ci mën a xam ba tax na lu baree baree bari sax nit dina am yéene sax te te du ko man waaye ñun dey nga xam ne si nii ñoo ñoo man mii di xam maay rakkam nga xam ne nii si ni maanaam Abdou Sylla ginnaaw yàlla lépp loo ci def man nii nga koy defal maag baayam Abdou Sylla am na fi kër comme ni ma la ko waxee am na fi oto am na fi ay bien waaye loolu noonu amuñ ci benn sañ-sañ man koo laal te xamul ci moom dara waaye jàppal ni dal lépp loo ci def fere ko ci jàppal ni tegu na ci sab loxo loolu moom bu mooy nga xam ko bu baax a baax a baax ndax man mii nga xamee si man nga man ngay jëflanteel ci moom as gor laa te lépp lu ma jëflanteeg do waxtaan wax ak doomu aadama bu soobee Sëñ tubaa dee rek ko koy dindi waaye du leneen ndax sama mag laa bëgg lépp loo ci mën a xam nga xamal ma ko li ma bëgg a xam ci moom mooy mi ngi dund wala dundul loolu rek laa bëgg jamono bu ne nga di ma ko nga nga nga nga loo ci xam nga xamal ma ko jàpp naa ne daal lépp loo ci fere man yaakaar naa ni bu soobee Sëriñ tubaa jàppal ni mi ngi tegu ci sab loxo li li li ma warloo ak yow nag bëgguma lijjantuma kenn jàppale ma ci jàppal ni man loo xam ne si noonu lu ma waxtaane ak yow la waaw du keneen koo xam ni ku ciy dugg la ndax man samay responsabilité laa jël ci sama mag ngir bëgg yow mi nga xam ne yàlla dogal na yaa nekk ci liggéey boobu nga leeralal ma ci lu baree baree baree bari maa ngi lay sant bu baax nag di la gërëm te di la jaajëfal te di la ñaanal ci barke Sëñ mi nga xam ne si ni ak Sëñ Muntaxa yàlla may la ci ndam te leeral mbir mi ba mu leer naññ waaw jërëjëf jëf sant na la bax gërëm la waaw kay xéwal. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Kurel tuba bi Brescia ma ngi leen di nuyu ci leen siyaar di leen balu ak di leen ya yàlla na yàlla boole baal. waaw bay Mbacke de ki nga duggal fi mi ngi gi waaw mi ngi de. dara jotu ko nag waaw Torino la safooru camion la woon waaye daal mi ngi Torino gi bàyyi mi ngi janwaa waaw cumbuleen si la gee la dëkkoon xam nga cumbuleen fam ne fa la dëkkoon waaw sun sun mbokk la waaye daal xam naa daal mi ngi Torino gi dara jotu ko nag waaw baax na jërëjëf Ah, ku baax ah kii de li mu wax wax dëgg yàlla moom mu ngi dund moom dund gi moom natta bi wuñ ko moom koy xanaa ci lu nekk lan war a wax waaye kii moom kii moom li wax moom moom mu ngi dund ndax ko xam la wax dëgg yàlla waaye loolu ñu la wax moo ci ne ndax jot ko moom du yomb te it magam boobu magam bu jigéen magam boobu kooku ko wàcceel jabar jooju moom moo ko joxoon sa audio boobu di ko wërlu moom moo ko woowaat ne ko jëratul wër feeñ na kon kay kooku xam na ne ma ngi dund mu ngi mu ngi turunoo wax na nda papam fi mu nekk wax na fi magam ne xam na ko ne ma nga Torino ma nga faaku njabootam te xam nga réew mi ñu ci bari am na yow bu ñu làqoo noonu ba takk seneen soxna rek ne fa ñaare dañuy nëbbutu duñ bëgg soxna see xam loola te it bu mën na ko indil yeneen problème loolooy tax du duñ ci mën a xoot benn xóot bi dund ki moom nattable wuñ ko moom ndax bu faatoon nañ ko wax te it ku yor soxna ku njabootam moom yaakaar naa kuy dund moo koy moo koy mën a def moom kay xanaa li des mooy dinañ mën a defee jëmee pexe ba jot ko moom waxtaan ak moom xëy na <laughs> bu ne ma naa ne te dégg nga moom ne numéro amu ko te it ñu la mel noonu am numéro ña koy am duñ ko joxe nga xam ne ne day nëbbatu xam ne ma ngi dund daal fi mu ne daal sagos moo ko fi bàyyi waaw ci liñ yaakaar ku mën a ñaan ba mu ñëw nag xayrul waaye leneen lu paase lii moom fooguma mu yomb ci nag ndax ñu bari bu ñu xamee ne day nëbbu duñ duñ duñ jéem a xool yenn xool yi ci affaire moom daal li ñu amaloon solo mooy ma ngi dund moom dund gi moom kenn naatabeetu ko waaw ndax kii ko wàcceel jabar mu xam na ko bu faatu woon mu ne faatu na damaa ko wàcceel jabar moom nit mun a paase loolu waaw xam naa daal ki ñuy wër moom moom moom feeñ na moom li ci nekk nag mooy nu ñuy def ba ba mën a jokkoo ak moom te loolu du yomb waaw loolu mu wax nag gisuma ci lu ko tane jéem a defi ñaan daal moo ci gën waaye fi mu ne moom moo fi bàyyi boppam waaw bu ñu dund moom loolu moom naattabli wu ma ko moom ndax kii ko wax moom xam naa ko xam wére wére du dugg ci caaxaan waaw xam naa ko loolu la wax loolu wér wax xibaar bi day ku rek waaye nag fii réew mi moom loolu ma la wax fi ne ñu bari bu ñu làqoo ba ne fekk seenu njaboot rawatina am geneen njaboot moom Eh, te te defoon yëfi njaayeen yooyu dootu <laughs> eh, jot leen dootu yomb noonu de waaw loolu daal laa ci moo ci sama xalaat nag ñoo ngi lu baax baax waaw jawrin na nga def mbaa yaa am jàmm rek na nga def ak coono hmm, ngeen ci yëf yi de wax dëgg yàlla sonn ngeen ci de waaye moom xam naa li ngeen bëgg a xam daal moom am moom xam ngeen ko wax dëgg yàlla mu ngi dund faatuwut <laughs> faatu gi moo amut li ci nekk nag wax jéem na ba eh, way juróom wax nañ ne da koo xawoon bandoone léegi nag ay bokkam wax nañoo ak moom ba nee na dana ci jéem hmm, pour jëm ko dapp mu ñëw kon kay loolu wax dëgg yàlla xer war na cee waaye ni ma gisee moom foofu rek la mën a yem waaw ndax yoree euh, soxna euh, it xam nga mooy loolu te it am na loolu bu ko yëgee rek mën naa daw dem feneen loolu daal ngeen bàyyi ko ci xel daal topp naa ko ba nee na wéy juróom bu góor moom góor moom da koo bandoone woon waaye bi yëf fi demee ba ci moom. mbokk yi wax nañ ba neen dana ci jéem nuñ mën a def ba mu ñibbisi incha allah def donte ay ñaan la ñuy def waaye daañ fexe ba mu ñëw waaye dund gi moom ma ngi dund loolu daal xam leen ko moom dund gi moo ngi dund waaye fi li ci nekk mooy ki ki ci doon wax lu leer da ci am lu ko naqari ndax moom mbokkam la waaye dañoo jël ojam te sare ko fu ne bàyyi mbokkam di ko wonaan ko wax ne lii wax lii yaa wax xam nga lii a dansé ndax ku fi nekk dina bul bëggoo yi kenn di la feeñal te nit moom bu nekkee ci ci lu ci lu jub du nëbbutu moo tax yooyu itam dee leen ko ci bàyyi xel te it am na nu muy nu muy siiwee ci moom rek mën naa def leneen loo xam ne du daal waaw naa daw foofu wala mu dem feneen loolu daal ngeen bàyyi ko ci ginnaaw bokk yi wax nañ ne ñu ngi koy toppatoo wax nañ woy juróom gu góor da ko bandoo ne woon waaye neen dana ci jëmi pexe donte ay ñaan la pour mu ñëw senegal man mo sañoon mu yem foofu waaw loolu daal laa ci gis ne moom moo ci moo ci pexe waaye faatu wut moom loolu daal xam leen ko moom moom amu ci mu ngi baax a baax réer googu nag am na moom am na réer na ay bokk moom juróomi at yi yooyu ñu wax yëpp xamuñu ci moom dara waaw am na moom réer gi amoon na waaye mi ngi Torino daal moom waaw